waaw Bécaye ba tey ñii ak le grand ama neex ñëpp xam ko mu nekk ndaanaan la mbër maa lay nuyu di la ziar. waaw maa lay fay maa ngi sant yàlla bu baax julli si yoon tamit. waaw mbër ba nga daanee bëreeg ki nga xam te ne mooy boo euh, booy bool ba léegi am ci kawam ndaw ba léegi amaate ko combat toogaay bu yàgg lan moo ko waral. waaw maa ngi si entraînement yi rek toog xaar rek samay catégorie ku ma si proposé rek ma jël la quoi lamb moom daa am yoon. ñu gis aussi sa digganteeg lu mel Sa Thiès ak ñeneen ak mais ba léegi gis ñu benn combat taxaw la waaw guy gi yëpp samay adversaire lañ ku ma si proposé rek ma si pare pour bëre waaw. ñu gis fan yii paas tamit ku ñu mel ne Bébé Saloum def sorti neex mu gën a ragal ci mbëri dama maa war a jël ñu bëre. waaw Bébé Saloum moom du ma ko tontu quoi daa bëgg a bëreex man rek mais man bëriwuma ak moom ndax maa moom bokkuñu catégorie na dem seeti Papa Yade 2 wala Ronaldo. wala Gambu Gueye ñoo la war a bëre mais ma moromu Bébé moom bébé la ba léegi doonul grand nekk mu seetu moromu. kon daal jàpp ngeen yaa ko raw ci làmb. waaw mais bokkuñu ñu tamit sa waay. adversaire ñoo jàpp. waaw mais wax nga ko léegi. saa kees. waaw ñu lay jaajëfal baax.